tàllal leen loxo yi gën di mindeef daara way gën di mindeef daara jinjin leen bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillah nacmuduhu wa nastacinuhu wa nastagfiruhu wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu ala man qaala buithtu li utammima makarima al axlaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akoona ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani seyduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi dikkaat nañu fii ak yéen di def ak yéen seen émission bu rëy boobu di ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu jëloon nag lax dëri bi di ko waxtaan ak yéen di nafarandoo sunu diine ak yéen kon nag ñoo ngi woon ci wa yaxrumu alayhi alkazibu wal xiibatu wal namimatu wal kibru wal ujbu foofu lañ toll woon wal ujbu tabaarakallaa Cheikh Abdourahman Laxdariw maa ngi lay tere ay jikko yoo xam ne jikko yu safaanu la mu ne na ko moytu te yàlla araamal na ko wala ujbu moytul naw jëf jëf doo ko naw war loo ko naw sa jëf sa wax waroo ko naw wa riyaaw ak ngistal bëgg ku la gis acte ostentatoire baaxul bëgg ku la gis bëgg ku la dégg ah, loolu baaxul araam na lu ñuy wax ngistal wariyaaw ak ngistal ngistal baaxul xoolal jëf jumu ak wax jumu yàlla war a tax boo waxee na yàlla tax boo jëfee na yàlla tax gis nga booy ngistalu bëgg ku la gis buñ la gisee jeex na yàlla nee na da nga ko la gis gis nañ la jeex na takk boo dikkee du la fay da ngay rentré bërëdu yi mel ni rëbbkat bu demoon ca àll ba danga demoon ca àll ba gisoo dara gisoo loo rey gisoo dara ngay rentré bërëdu yi noonu ngay rentré bërëdu yi noonu la ngistal bi bu demee ci kanamu boromam ngistalkat bi bu demee ci kanamu borom rentré bërëdu yi sunu borom du la fay dara wa atu ak bëgg ku la dégg araam na wal xasadu lii moo lëmbe jamono nag yàlla nañ ci yàlla musal mooy iñaan baaxul xasadu ak iñaan baaxul yàlla nañ ci yàlla musal iñaan baaxul iñaan saa boo ko defee rek yaa yàlla te kuy bëreeg yàlla nag waatal jëlam ma ne ku iñaan ku mu doon yaa ngi bëreeg yàlla te kuy bëreeg yàlla waatal jëllam suuf la jëm doo am ndam bay laa yowmal xiyaam alxasuudu laa yasuudu wa ilal jannati laa yaudu allahu akbar alxasuudu du nekk sànq bay laa yom xiyaam saa boo xëyee gis loo iñaane wa ilal jannati ajjane suñu borom laa yaudu doo doo ci dugg bay laa yowmal xiyaam ajjana doo ko mos ma ne borom cër yi defuñu dara borom cër yi defuñu dara ki séddale cër yi moo def dara demal ci moom te moo séddale cër yi mooy yàlla demal nga attaqué yàlla inna al fadla bi yadillahi yutihi man yashaw wallahu zul fadl al azim yàllay seet lu ko neex ci jëmm ju ko neex mu def ko lu ko neex allahu akbar yàllaay seet lu ko neex ci jëmm ju ko neex mu defal ko lu ko neex mu yàlla subhanahu wa taala yàlla mooy dogal di mooy seet jëmm nit gis nit ci biir famille mooy gis nit ci biir famille mu def ko milliardaire kenn mënu ci dara gis nit ci biir famille mu def ci moom xam-xam kenn mënu ci dara gis nit ci biir famille mu def ci moom moom daraja kenn mënu ci dara waaw boo jógee nag yow ñàkk gëm yàlla nga ne xaaram iñaane ko yaa gi bëri ak yàlla yàllaa ko def inna al fadla bi yadillahi yutihi man yashaw wallahu zul fadlil azim xool bañ bi waa Makka bañoon Seydina Muhammad bañ gi yëpp tegewul dara lu dul ci iñaan dañu wax ne Seydina Muhammad du fi yonent faqiru Makka bi iñaane ko yéene woon ko seen bopp mbaa yéene woon ko seen baay mbaa yéene woon ko seen doom mbaa yéene woon ko seen nijaay dogal bi ñëw dal ci rasulillahi ñu ne du fi amee loolu leen sonal ñaan bul ñaan mukk nangul dogal yàlla nangu cër la ma ni nangu cër la nangul waay waaye dimbale ma nga nangu ak koo nekkal nangul boo amee xam-xam nangul ko jógal ci diggante jaam bi ak boroomam jóg fa jógal ci diggante jaam bi ak boroomam nangul yàlla ko def milliardaire nangul waaye ku yàlla def milliardaire ngeen ni jaaykatu drogue la fan nga fan la loolu tegu yàlla jox la kat kat nangul kontaan ci soo bëggee yàlla jox la kat kat yàlla jox na ko xam-xam nangul waaye nangul waaye bul iñaan mukk wa yaxrumu wa yaxrumu alxasadu xoolal iñaan baaxul bul ko def te nag da lay jural stress ak souci ak pression yooyu def ci yow jàngoro bu defee ci yow jàngoro nga gaaw a dee billaahi baaxul billaahi baaxul iñaan baaxul jaadu na kenn ku ne nga bàyyi ba guddi ajjuma wala ba guddi altine nga julli ñaar rak ne yàlla sama xol bii maa ngi lay ñaan yàlla sama xol bi maa ngi la ñaan yàlla na nga ma musal ci xol bu am iñaan ci xolu kañaan musal ma ci yàlla loo def loo def rek yàlla na nga ma ko nanguloo waradini bil qada rabbi musabbirani ala balayka ya rahmaanu yàlla nangul nag nangul nangu jot na Ababacar Sadiq lu ko may lii moom lu ko may muy deuxième personne deuxième personnalité de l'islam lu ko may Ababacar Sadiq lu ko may deuxième personnalité de lislaam lu ko may nangu nangul Seydina Muhammad waaye nangul waay wal xasadu ki ñaan baaxul wal buxdu ak bañ nit lan ngay bañaate lan ngay bañaate bañaate baaxul bul bañ kenn bul bañ kenn bëggal ñépp xanaa ku nekk ci lu naqari sunu borom kuy bàkkaar kooku woo ko nga yedd ko woo ko nga teg ko ci yoon wa ruyatul fadli alal xayri bul sàkku ngëneel sa digganteeg benn doomu aadama bul sàkku ngëneel sa digganteeg benn doomu aadama bul sàkku ngëneel sa digganteeg benn doomu aadama bul sàkku ngëneel sa digganteeg benn doomu aadama bu ko def mukk mukk mukk mukk kenn gënul kenn sallallahu alayhi wa nee na ku ñuul gënul ko weex ku weex gënul ku ñuul arab gënul ku dul arab ku dul arab gënul arab fenn la ñuy gënantee fenn kott la ñuy gënantee ki la gën a ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ki leen gën a tëdd mooy ki leen gën a ragal sunu boroom bu sàkk ngëneel ci kenn géwél bi géer bi tukkuleer bi ngeena bi tëgg bi yooyu amul wa kullukum min aadama ngi bàyyikoo ci aadama aadama a ngi bàyyikoo ci suuf kuy yaa ngi bàyyikoo ci aadama di nit aadama a ngi bàyyikoo ci suuf waaw yow doo may sa doom tëgg bi wala doo may sa doom géwél bi wala doo may sa doom ŋeeñe bi wala doo may sa doom géer gi na tëdd hôpital na géer gi tëdd hôpital géer gine du may doom géwal wala géer gine du see géwal wala géwal bi ne du see géer wala tukkulër bi ne du see séeréer wala mànjaago bi ne du see tubaab bi bépp xeebeel booy doxal sa digganteeg nit ma ne tëddal hôpital te nga bokk ak moom groupe sanguin géer nga géer nga nga ni doo may sa doom géwal tëddal hôpital nga cancer wala nga tuberculose wala nga am problème wala nga am insuffisance rénale wala nga am problème soxla ko la may deret soxla ko la may deret te kala war may deret géwal la yow ngay géer su boobaa doo ne su boobaa doo ne géwal la de doo ko wax de mukk bu la mayul deret nga dee tey na bokk groupe sànge ngay géer muy géwal nga dim ko may sama doom su boobaa bu la xettaliwul bu gisuma la mbaaw su boobaa doo fi indi géer géwal de caaxaan baaxul ñëpp a yem ca yàlla respectel ñëpp bëggal ñëpp soppal ñëpp doomu aadama yëpp ñoo ngi bàyyi ko ci aadama aadama ngi bàyyi ko ci suuf bu sàkku ngënal sa diggante kenn wal hamsu ak piis wayun li ko lee hummazatin لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الختامة وما أدرك ما الختامة نار الله موقدة التي تتلو على الأفئدة إنها عليهم مسدة في عمد ممددة yàlla nañ ci yàlla musal hawal hamzu mooy aybal nit aybal nit ci sa bët wa lamzu mooy aybal nit ci sa làmmiñ araam na bàyyi ko wala abasu ak di fo warul am jotu fo jullit warul am jotu fo jul du fo fowul folowul afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun suxriyatu ak di reetaan moom la ñuy wax kekkoo mooy riir fardonique baaxul riir fardonique baaxul yàlla nañ ci yàlla musal di reetaan nit di kekku di ko reetaan mu nekk ci ay problème wala mu nekk ci ay musiba wala mu nekk ci ay xat-xat nga koy reetaan baaxul te Seydina Muhammad nee na yàlla ku mu teg problème nga reetaan ko bala ngay dugg bàmmeel suñu borom dana la teg problème bu mel noonu tabaarakallah wa suxriyatu wa zina foofu la ñu toll waxtu yu dab nañu ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla tabaarakallah yàlla ñu yàlla nangul ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen émission bu mag baa ngi noonu ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam seen site bu mag boobu nga xamante ne mooy fkr 92 point com kenn ko doon defal di seen xarit seen soppe xaadim seen assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaara way gën ji mindeef jaara